je voulais juste euh, mettre euh, Cheikh li mu parce que mm-hmm. moom laa doon sànq ne la c'est important aussi mm-hmm. euh, am na ay points positifs am na ay points négatifs parce que mm-hmm. aujourd'hui tey bu ñu waxee aussi Alioune par rapport tout qu'il a fait pour le pour l'équipe nationale du Sénégal yu positif yi yëpp mais aussi les points négatifs mun mun naa ko expliquer mooy comme ni ko Cheikh we je suis entièrement d'accord ak moom parce que boo xoolee Coupe d'Afrique bi nga xam ne moom la ñuy perte euh, contre Cameroun quart de finale mm-hmm. man je pensais que je pense que boobu moo doon Coupe d'Afrique vrai bu Sénégal même bi ñuy perte contre Algérie mm-hmm. je pense que aussi Coupe d'Afrique bu Sénégal la mm-hmm. même bi ñuy gañee sax en Cameroun gagné nañ ko mais dañ ko gañee au début difficilement parce que y avait problème mu Covid yi amoon na détails yu bari yoo xam ne donc je pense que Coupe d'Afrique boobu mhm. moo gënoon difficile mhm. pour gañee ko kon ça dine même en Côte d'Ivoire ni ñu demee aussi tamit mënoon nañ am tey minimum par par rapport ak cette génération minimum waroon nañ am deux à trois coupes d'Afrique ça moom vraiment je suis entièrement d'accord mm-hmm. ce que Cheikh a dit parce que c'est des constats yoo xam ne dafa am c'est des trucs yoo xam ne c'est des faits normaux Côte la Sénégalais yi le grand public sénégalais yi xaw a découragé en quelque sorte ci moom contre Côte d'Ivoire waaw contre Côte d'Ivoire après match boobu da Sénégal yi dañu am déception. dañu am déception parce que Coupe d'Afrique boobu moo gën a indi déception. te équipe am na fa xam ne bu fa tolloo. am na parcours yoo xam ne bu ko ratee rek. day ah, commencé chuter donc je pense que loolu muy commencé contre Côte d'Ivoire parce que yaakaar bi Sénégal yi amoon yëpp. mais pour waxante dëgg aussi Sénégal pendant toutes ces années que Aliou Cissé nekk fi minimum mënoon nañu am deux à trois Coupe d'Afrique. loolu moom franchement lu mën a nekk la beneen bi aussi tamit Cheikh am na lu ma aussi c'est très important mhm. que mooy les joueurs locaux mhm. parce que les joueurs locaux aussi tamit il faut que ñuy nangu di leen jox chance aussi quand je dis il faut que ñu nangu di leen jox chance parce que un entraîneur l'équipe nationale aussi mhm. dala war a permettre même bu fekkee ne regroupement locaux yu am na les joueurs locaux am nañu regroupement même bu fekkee ne yow doo entraîneur bi ñëwal benn yoon wala ñaari yoon nga ñëw def séance ak ñoom yow sax nga jël séance def ko dafay nekk plus que de motivation pour les pour les pour pour joueurs locaux yi pour man aussi loolu aussi c' est des kii yoo xam ne c' est très très important donc je pense que ki di nekk prochain l' entraîneur foog muy bàyyi xel loolu mm-hmm. que ñu bañ a choisir ne mm-hmm. xale yi nekk Europe xale yi nekk France rek wala wala euh, Angleterre wala mm-hmm. ñoom rek ñoo war parce que aussi tamit xale yi nekk fii tamit di rey seen bopp ñu leen di tàggat tamit war nañ mën am benn chance bi tamit parce que aussi tamit tey au moins ñoo demoon gagné CHAN bi aussi tamit kon daal di am na si ay certains jours yoo xam ne yow international bi booy ñëw benn yoon wala ñaar yoon semaine bi. Mhm. di jël séance yi di koy def aussi tamit dina leen gën a mën a. dimbali mais mais est que tamit beneen aspect bi gën a tax euh, renouveler wuñu contrat bokk na ci suñu 4 euh, ou 5 match yu ñu am fii boo xoolee Nil ak RDC Nil ak Burkina Faso perte fii suñu dëkk ak Algérie est-ce que nekkul ak classement FIFA bi ni ñu ci wàccee euh, nekkoon ci 18 ñëw 22 et cetera loolu noo ko noo ko gisee est loolu moo tax voilà. mais pour être honnête man li ma wax laay waxaat quoi. je répète encore Aline il a tout fait pour l'équipe nationale. mais dafa jotoon benn moment bu dem. il faut il la vérité. parce que pour man. boo nekkee pendant neuf ans. am na benn moment boo xam ne nga def loo xam ne kenn defu ko fi benn moment yow yaay dem. après ñëwaat. donc ça dina loolu c'était très clair. après façon bi ñu ko bàyyee. moom lañ d'accord man personnellement laa yow. ku nekk ah lii la engagé man façon bi ñu ko bàyyee d' accord ma si parce que lu tax d' accord ma si parce que il fallait que ñu def ko. defoon ko après la coupe d' Afrique contre Côte d'Ivoire. ñu arrêté contrat wala comme commencé na. ba fi ñu toll nii pour dem coupe d' Afrique si je me trompe pas il nous reste trois mois. on dans les qualifications moo démarré qualification yi. pour man c' était mieux de lui laisser de terminer. après cette coupe d' Afrique quelque alpha les résultats mu dem. mais aussi tamit pour man aussi sama point de vie Alioune am na si part de responsabilité. parce que amoon na avantage bu yàgg pour libérer équipe bi pour dem. c'est pas question que da nga libérer équipe bi da nga abandonné. c'est pas nga libérer équipe bi parce que y a ça et ça ku xam Alioune xam ne Alioune guerrier la jàmbaar la nitu principe la mais mbir day toll foo xam ne bul nangu ñu jël sa loxo. di ko génnee si si bool bi. Mhm. et c'est man loolu laa d'accord parce que aussi tamit tout qu'il a fait pour l'équipe nationale du mhm. loolu. qu'on se dit la vérité. donc da ngay d'accord ñu jàpp dañ humiliation en fait ñu ko génnee. je ne dis pas humiliation mais du chose bu normal. c'est pas une chose très claire. et man je suir ko que. même bu ñu ko woowoon ne ko Alioune. écoute bu je ne sais pas si problème de et tout ça ñu woo ko ne ko yoruñu xaalis dañ bëgg walla nga yóot continuer équipe bi. fay la salaire u 10 millions Alioune da koy jël man je suis sûr mm. même bu ñu ko waxoon ne ko duñ la fay dara sax da koy jël dem. xaw ma ndax comprendre nga ban kon le problème c'est pas un problème d'argent mm-hmm. pour man je ne pense pas Aliou Cissé que connais par rapport ak ni mu bëggee Sénégal loolu man xam naa ne mm-hmm. jaraloon na mu jël équipe bi yu parce que moom si ay principe lay demee mm-hmm. si si bëgg-bëgg lay demee mais moment bi ñu ko def pour man moo dul yoon parce que mun nañu sonal parce que dañ nekkoon si benn qualification quelques même même pas cinq six mois ñu nekk ci Coupe d'Afrique man ci côté boobu la mais à part aussi Alioune waroon na dem bu yàgg aussi il faut qu'on se dise mais est ragaluñu ak li ñuy jot a produire ñu jot a wane parce que euh, am na ñuy xalaat ni Alioune bi mu amoon perte na ko côté discipline parfois ñu gis ay vidéo yu fuité mook Sadio Mané ñu ne équipe bi ni ñu ko joxewoon benn euh, respect bi xaw na wàññeeku tactiquement tamit dafay am yu bëri lu manqué est-ce que ragaluñu woon bu ñu demee Coupe d'Afrique ñu dund fa humiliation mais fi ñu toll nii ñun xamuñu fan lañ jëm ah. parce que actuellement nii deux matchs yi xamuñu. xamuñu ndax dañuy qualifier wala duñ qualifier. aussi bu ñu qualifier li ñu dem di fekki foofu xamuñu ko. après il faut pas mettre tout ci Aliou Cissé. on a une génération buy buy màgget aussi nañu waxante dëgg. Mm-hmm. on a une génération boo xam ne. envie bi ñu amoon amoon mm-hmm. amatuñu ko on a une génération boo xam ne li ñu waroon prouver prouver tuñu ko. Mm-hmm. tey Sadio Mané lan la mën a prouver Sénégal Sadio Mané il a tout donné Sénégal. Kalidou Koulibaly la même chose Idrissa Gana Gueye la même chose. te loolu mooy ah tey mun nga jël équipe bi di lim kii Mendy c'est la même chose. comprendre donc tous ces gens là ils ont tout donné pour le Sénégal. pour moo la exemple motivation bi ñu amoon. Mm. mais mënatuñu ko amaat tey. ñun ñëpp ñun ñëpp ay ay jours lañ. Mm. am na foo xam ne boo fa tolloo gis nga Aline ni mu tollee ni mu atteindre sommet. sommet noonu lañ atteindre foofu aussi après il faut pas jël lépp. ko si Aline non man pour man c'est clair et net. Mm-hmm. war a dem. mais ban moment la waroon dem est-ce que moment bi la non après la coupe d'Afrique de de de comment de Côte d'Ivoire dañ ko waroon libérer mu dem walla moom si bëgg-bëggam bu ko neexoon après coupe du monde bi mu dem nga xam ne pour man kenn dootul amati sax lu mu taas bu ndaw bu mu koy tegal te man pour man foofu laa d'accord ak moom jëlul décision boobu maintenant fédération wala ministère malgré mu ko bëggee gaar am na benn moment boo xam ne après coupe d'Afrique bi dañ ko waroon bàyyi mu dem bàyyi ñu ko ndëg mu dem teye nañ ko ba moment bi dañ ko bàyyi mu continuer équipe bi ce qui loolu moo logique bon man question bu may laaj rek Cheikh Diba ma commencé ko si yow mooy par est-ce que Aliou Cissé événement wu football saoudien bi nekkul lu ko trahir parce que à l'époque dañ doon dégg ci ay déclaration am mu ne bépp joueur boo xam te yaa ngi évolué ci benn championnat bu moins surtout ñi nekkoon ci golf bi dootuñ leen woowate est-ce que loolu euh, xawul yàq benn ci dynamique bu Aliou Cissé newoon ci équipe nationale bi je pense que loolu euh, lu ñu wax wax waxeet moom si boppam moo ko waxal moo ko waxal boppam que yenn joueurs yi championnat exotique yi. Mhm. Euh, ils n'ont plus leur place en équipe nationale. mais léegi ba ñu demee benn moment boo xam ne que nos cadres ils ont pris la décision di dem si championnat yooyu. Mhm. Euh, il a changé de discours. Mhm. pour nous dire